ñaata xeetu sëriñ am amu ne loolu lu jar a wax ci jamono ji xañ na moom la ñuy tëjee ma parce que man li ma gis Dakar léegi sëñ bi kum tiitalut a ah, xañ na man mi xamul dara peese wu ma dara man tiital na ma waaye ñi xam baatin ñoom xañ na yàlla wan na leen ëllëg mais li ma gis Ndakaaru ci woote gu métti gi ak fit wiñ ànd ak nga xam ne yal na yàlla musal ñu waaye daal wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaas Muhammad dem jegeen dafa laaj bàyyi ne ko ñaata xeetu sëriñ mu am bàyyi ne ko ñetti xeetu sëriñ mu am qismun yad'u ila nufusil atbaa am na ci sëriñ si ñoo xam ne ñoom seen bànneexu taalibe yi la ñu jaamu fa yatruku kulla waxidin bi maa yuwaafiqu hawa nafsihi taalibi bu nekk rek boo nee coron sëriñ boobu loo def ci loo teg ci sa bànneexu bakkan yoonam nekkut ci moom naa am mbooloo rek moom mbooloo rek la soxla mais soxlawul qualité taalibi bi day jëfandikoo lii taalibi bi mi ngi ci bi yoonam nekku ci mais na mbooloo mi bari rek looloo ko intéressé leneen intéressé ko bàyyi nee na kenn ngi mu teg ci ne wa in axalla bi aadaabi shariat doonte taalibe boobu mi ngi yàq teggiinu sharia du julli du or yoonam nekkul ci ahkaamu sharia yi sëriñ bi moom it yoonam nekkul ci taalibe boobu kooku sëriñ la te boo dawalee sa bët rek doo doo génn jam ñaajo danga koy gis ci biir Dakar tax mu ne ko xaaj la boo xam ne yad'u ila nufuusil atbaar moom sëriñ boobu day woote rek di jëm ci bànneexu bakkani taalibe bi fa yatruku kulla ahadin wa ma hawa nafsi ku ci nekk rek daf lay boyal bàyyi la sa bànneexu bakkan loo def ok garaawul amul problème waaye bu nekkee ne moom ci loolu la nekkee mënu la koo aaye ida kaana rabbul bayti li dafi daariban fala talumi sibyaana yowman ala raqsi loolu shaar ba waxoon bu nekkee ne borom kër gi moo ñàkk fayda toog ci digg kër gi ubbi caayam ji di tëgg mais bu xale yi tëbee di pàkkar nii daf leen a mën a aaye ah, taalibe buy def lii fekk kim askanu li muy def sax yàlla bu ko taalibe bi xam ko mën na ko aaye moo tax bàyyi ne wa in aqalla axalla bi aadaabi shariati wa tariqati doonte mi ngi yàq xaqi shariatu ak tariqa bi yoonam nekku ci xamalan ragbatan fi baqaa'ihim maahu parce que dafay bëgg a canaliser taalibe boobu ba du ko fi bàyyi dem seeti keneen xam na ne bu ko waxee dëgg mu bàyyi ko fi ko loolu catastrophe la naa am mbooloo mais duma leen wax dëgg ndax bu ma leen waxee dëgg ñu dem seeti keneen ku leen raay bàyyi mu ne kooku benn la ci qualité sëriñ si mu ne wax wa qismun yad'u ila nafsi kii nag moom ci boppam lay oo gaay kaay leen man la maay xalifa baay maay nangam maay nangam te booba nga réeree baay mu ne yamurul atbaa day digal taalibe ci lu digluwut wa yaxudduhum ala ma fihi hawa nafsi yi toujours da orienté ci li ko neex moom sëriñ bi pas neex yàlla baay mu ne li anna maqsuudahu dhaati xusulu agradi kooku sëriñ boobu boppam rek moo ko intéressé ak ay soxlaam faju rek mais yeneen yoonam ne ko kaay leen ma kaay leen indil ma addiye ji kaay te luñ ko dajaleel mu jënd oto zéro kilomètre xool ki gën a rafet ndakaaru mu takk ko di fanaan ci climatisé di ci yendu bu génnee nga gis ko muy nes-nes yi nga foog ne dafa fanaan a jaamu yàlla nelaw yu métti la fanaanoo ñun xàmmee nañ leer kurus ak leer ak climatisé mu mooy ñaareel bi mu ne wa kook la bàyyi di wër wa qismun yadoo ila allahi ala basiratin koo xam ne day woote jëm ci yàlla teg ko ci xam-xam bu wér ak leer ak yàlla gu bir moom la alquran waxoon qul haadihi sabili adoo ila allahi ala ana wa man ittabaani mooy sëriñ tax ku ci nekk nag nag yaay xool foo toogee ci basan gi rek nga farangulaayaat wala boo bu toogaay bi baaxutoon nga defaru ne yàlla sàmmal ñi suñuy xaatir def ñu ñu bokk ci ñetteel bi bàyyi wax ne ñun xismu boobu ñun nañ bokk ci xismu boobu du ñu woote dara ndax fekk yaa ngi gëm ne amoo rek doo woote te dañoo gëm ne ñun ñëpp ay ñaar dërëm lañ ci biir poosu bàyyi bi mu war ñee jëndee lu ko neex te lu muy jëndee rek gërëm nañ ñaan yàlla yàlla buñ nekk weccat woo xam ne da ngay poccatiku mooy nga wadd te borom poos bi du ko yëg te weccat wu yem ci poos rek doo poccatiku yàlla nañ yem ci fi ñu sëriñ bi yem loo ndax ñu nekk taalibe yoo xam ne lépp lu péyam bi di dégager rek yar bi ak comportement bi danañu may ahliyatu ñu xam ne war nañ ci am yal na yàlla di ñuy tibbal toujours ci ndabal yaru ak ndabal mbëggeel ak xam liñ am ñu téye ko fukki loxo na yàlla def ñu ñu nekk taalibe yoo xam ne laata ñuy tiitaroo sëriñ bi day fekk sëriñ ba ak ñuy tiitaroo suma taaba alayhim liyatubu ci barke Baay ci barke maam alxaj abdullahi radiallahu anhu barki Cheikh Tijaani radiyallahu anhu wa bi jaay xabibina almustafa sallallahu alayhi wa sallam jaay yaa rabbana yaa man ilayhi almuttakal qad shaqa qalbi lahu mumu walwajal falastu arda an akuna abda li gayri datika fa ardi al abda qad shatta li shamra sururi wanbara hammun barada alhamma مالك القرى ولم يكن إلا إليك الملجأ ولا أرى سوى لديك المنجأ bijaahi subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin